fay man Kardiatou Mamadou Sall laa tudd di maire Macky maire Macky Sall man ci dund bu seer bi foofu la waxee dund seer bi ñëpp xam nañ dund bi seer na waaye dund bu seer bi loolu moom ñëpp la adduna bi ñëpp la dund seer bi adduna bi ñëpp la ndax Covid 19 bi moo indi lépp kon ko suñ ko bëgg ñu ne Sénégal dund bu seer loolu waxu politique la rek waaye dund seer bi adduna bi ñun dañoo am sens sax. am na lu ñuy gis mais am na yeneen réew yi nga xam ne moom duñ ko gis te suñ ko gisee day seer ñun bu ñu xëyee dañu gis diwlin bu ñu xëyee dinañu gis suukar bu ñu xëyee dinañu gis ceeb am na yeneen réew yi nga xam ne moom ñu gis diwlin bër la ñu dund kon ñun dañu war a sant yàlla dund bu seer bi du président Macky Sall. léegi léegi saako soble bu doon jox loolu ñii ñuy nu mu tuddati commerçant yi ñoo ko seeral parce que dañu bëgg a profito saako 50000. loolu dañu bëgg a profité rek waaye yokk yokk am na ñi nga xam ne bu ñu déggee de yokk rek même bu ñu amul yu yokk dañ koy yokk ndax loolu mooy seen intérêt yokko bu yokkee dañ yokk lu yokk rek waaye dañoo sooraale leneen nga xam ne moom amul yokk yokkuñu ko ñu sooraale bu ko koo yokk te bëgg a yàgg profité ci kaw askan wi Macky Sall yokku bu dee rek bu dee rek dégg moo nekk yàlla moom profité na ba jëndi ay alalam dugal ko ci ndundu bu seet bi ñëpp xam nañ pour nekk mu doon parce que farine bu mu manqué moom jaral na ko moom mooy président union africaine dem ba bitim réew waxtaan ak ñooñu boobu moo ñooñu mën a bàyyi farine bi bele bi ñëw ñu profité ñu lekk mburu kon xam nga lu ne jaral loolu du troisième mandat loolu ñëpp xam nañ du troisième mandat parce que moom conseil constitutionnel bu ma waxee nee na mandat cinq ans loolu ci conseil constitutionnel am na sept ans bii passé ci conseil constitutionnel Abdoulaye Wade la ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko moom premier mandat moo ngi doog a am deuxième mandat am mu ngi mu ngi commencé ci 2024 ñëpp xam nañ ko léegi nag bu dee moom opposant yi mën nañ ko portefeuille ñoom ñi ci seen bopp ñoom ñoo ko njëkk a wax ñu naan troisième mandat bi amut mandat bu sept ans bi moomu ko set mandat bu sept ans bi ci temps Abdoulaye Wade la ci conseil am li woon moom conseil am bu mu tëral cinq ans mu ngi doog a commencé moo ngi doog a am benn mandat 2024 lay amaat deuxième mandat ñëpp xam nañ ko ñoom nag comme que amul lu ñu profito amul lu ñu politiqué mën nañ wax troisième mandat bëgg a yàq xel nit yi waaye ñëpp xam nañ ko te lu leer la